ma ngay defub jàngat jëm ci système sanitaire bi lu jëm ci fuite des cerveaux ak wàllum leadership féminin nag loolee lépp nag moom candidat à la présidentielle bi jàpp na ne nag faaw ñu jooyanti rëq-rëq yi nga xam ne rek moo ci daal di nekk moom nag li mu bëgg bés bu faloo ci réew Sénégal bokk na ci tabaxaat réew mi loolee nag la xam xamle ci émission Grand Oral bi ñu ko doon dalal fii ci réew mi TV yër leen boobee yëglekaay addu jëmale ci leneen mu soxal commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne rek bëgg nañu koo amal jëmale ko ci ñaari membre yu bokk ca conseil constitutionnel Sud Quotidien Quotidien nag ma ngay xam ne ne magistrat yi jamono ji nag def nañu dank fas yéene taxaw defante ak ñi di parlementaires yi union des magistrats yu Sénégal nag ña ngay ñaawlu loolee ñu jàppee ab séparation des pouvoirs rawatina nag lu jëm ci xañ wàllu yoon seen indépendance waa UMS nag jamono ji taxaw nañu temm fas yéene xeex-xeex bi nag bu ñu di ci dal gi nga xam ne rek ñu ngi koy dal boobaak léegi ci kaw conseil constitutionnel ci yéenekaay bi nag ña ngay ñaawlu doxalin gi nga xam ne rek moom ko ci wàllum enquête parlementaire boobee nag loolaa waral nag ñuy sàkku ci képp koo xam ne rek mi ngi bokk ci ñoom nañu booloo defub say nag ngir mën a jàkkaarloo ko ñi nga xam ne dañ leen di bëgg a néewal doole ci biir critique yëglekaay ña ngay xam ne nag ne amul benn commission parlementaire boo xam ne rek mën naa taxaw di càmbar compétence su magistrat yi yéenekaay bi ne jafe-jafe yaa ngay tàmbali nag jamono ji ci wàllu yoon na lan la loi bi wax ci wàllu woowee nag loolee la yëglekaay bi di enquête xëy dellu soit commission d'enquête parlementaire ku ancien député nag ma ngay xam ne nag ne article 48 bi nag la mu xam le bokk na ci mën nañoo ubbi ab commission enquête parlementaire waaye ci kaw rek bu ñu amee ay jafe-jafe yoo xam ne rek dafa jëm ci wàllu ordre national Benno Bokk Yaakaar ñoom ci seen bopp nag ñoo waroon a bloqué boobee initiative parti démocratique sénégalais nag jamono jooje ma ngay xam ne ne ñetti milliards ci suñu xaalis nag moom la ñu neexalee ñoo ñee ca conseil constitutionnel Les Échos yëglekaay nag àddu ci leneen mu di Ousmane Sonko jamono ji nag daal dinay tànn Bassirou Diomaye Faye ngir mu doon candidat bi leen leen di demal ci élection présidentielle yi yeneen candidat yi nag jamono ji daañu ko dimbali ci programme bi nga xam ne rek moom la ñu taxawal su ko defee nag ñuy mën di xàccandoo di dóorandoo loolee la yëglekaay bi daal di xamle ci Walf Quotidien beneenub candidat mu di Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom nag ma ngay xam ne nag amatul benn relation boo xam ne jamono ji mi ngi dox ci digganteem ak président Macky Sall ba tey ci boobee yëglekaay nag Mamadou Lamine Diallo ma ngay xam ne ni Sénégal moom du ab foowukaay boo xam ne rek ku jug foowee ba mu neex la nga daal di jox sa moroom daal indi ay coppite lu jëm sax ci élection présidentielle yu 2024 yi nag 24 heures nag xëy na di sampalaaj nga ndax dinañ amal dëgg-dëgg campagne électorale sénégalais yi nag ndax xam nañu li ëmb ci élection présidentielle yu 2024 yër leen bi la yëglekaay tribune yëglekaay nag dellu si ci càkkuteefu libéraux yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum France ñoom nag li ñu bëgg jamono ji moo ñu daal di dàq élection présidentielle yu atum 2024 addu ci leneen mu di direct news nag dellu siwaat ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci milliards yi nga xam ne rek moom la waa douane dugal ci gafak réewu Sénégal atum 2023 ñaari loxo la leen Moustapha Ba tàccoo nag rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne rek def nañ ko ñoom douane bu Sénégal évidence yëglekaay na douane bu Sénégal kay jamono ji nag defati nañ seen mënin ndax koppar yu am solo nag la ñu daal di dugal ci gafak réewu Sénégal démb la leen Moustapha Ba doon jaajëfal moom jëwriñ ju ñu dénk wàllu budget libération dellu siwaat tey jii nag ci njaaxum li nga xam ne rek moo xew foofee ci douane bu Thiès mu di Assane Diop mi nga xam ne rek dañu koo faat foofee ca marché ngelaw xew ca diwaan bu Thiès moom nag juróom benn fukki at ak juróom ca la amoon nag dañu koo jamate ay paak laataa ñu koo rendi huitième de finale yi nga xam ne rek moo soxal Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu war koo amal tey ji jongante bi bu vingt jotee lay doon Aliou Cissé nag ma ngay xam ne ni conditions yi war yëpp nag dinañ ko jël ndax xam nañu bu baax a baax li leen di xaar ci bile jongante waaye nag faaw ñu xam ne rek li xewoon ci atum 92 ak 2014 romb nañu ko jamono ji nag gagné te jéem a jàll ci leneen mooy suñu yittee yëglekaay bi ba tey muy xamle nag ne ñaari gaynde yi di Youssouf Sabali ak Pape Gueye seenub jongante ki tey ji nag dara wóoragu ci yéenekaay bi di Le Soleil ne huitième de finale bu Coupe d'Afrique bi kay Sénégal dana ko jongante tey ji nag seequ koog waa Côte d'Ivoire bu vingt jotee lay doon bés bi le jour na jaar leen fa ngeen daan jaar ngir mën a am ndam ci kaw Ivoirien yi nag yëglekaay bi di Rewmi Sport nag nekkaan 2023 bi huitième de finale yi nag diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire bu vingt jotee lay doon yéenekaay bi samp ab laaj ne ana kan moo fas yéene nag remporter boobe derby li ci kanam